asalaamaaleykum sama gars yi ngi leen di jaré bu baax a baax fii ci réew mi sport alxamis le 26 septembre 2024 ñu ñëw ci xibaar yi bu fekkee ne abonné go ñoo ngi sàkku nga abonné bi lu ama am solo la ci seen bi gaañu aussi ñu insisté bu baax a baax ci partagé mais surtout yow mi nga xamante si da nga seetaan vidéo ba pare bu fekkee ne abonné go vraiment abonné la partagé li nga xam ne moom mooy vidéo bi c'est important parce que loolu moom mooy jël tax li nga xam ne moom mooy chaîne bi jëm ca kanam bokk yi ñoo ngi leen yëgal benn saak bu ñuy jaawale transport Dakar ak Touba maanaam makaarimal axlaa biisu Cheikh Abdoul Karim Mbacké moom la ñuy jaawale sama grand frère bii ñu naan Dame Noble mooy ñaan ndimbal ci bileb saak saak bii kët li gën a tax mu koy wër jumtukaayam yu ëpp ci li muy liggéeyee ci saak bile la nekk ndeysaan képp gis vidéo bii kët te njortu ne dafa jaawale ab saak te duggoon ci biis boobu depuis vendredi passé ñu si dimbali nag ñu si taxaw ndax kët saak bii la gën a am njariñ ci la muy liggéeye bi lab saak ci la nekk kon nag bokk yi épp ku ñu dimbali baa nga taxawuñu baa nga gën a ñoo xam kët ñuy lijjante mbir yi nag ñu jàppale jàppale gi war ngir jëmmi xaadimu rasul mi ñu yaakaar képp ko am lu leer numéro yii ñu affiché na ngeen ñu si wax kon euh, gaañ ñoo ko déggandoo képp koo xam ne donc mën nga dimbali Euh, sunu mbokk taalibe boobu nga xam ne moom mooy daam pour que mu jot ci li nga xam ne moom mooy valise bi nga xam ne dañ koy jaawale te xam ne a liggéey moom nag fi ñu toll nii mi ngi ci Dakar moom na ko képp jàppale ku ko gis tamit mën ngaa woote donc 77 130 41 33 vraiment pour que ñu mën a jàppale ki nga xam ne moom mooy daam mu mën a jot mbir mi bu fekkee ne tamit mënu leen kaa woo ci numéro boobu mën ngeen ñëw woo ci sunu numéro di 78 295 15 51 di Rewmi Sport pour ngeen ma daal di man a jot uh, kii di uh, daam bu ko defee ñu mën kaa jottali li nga xam ne boobu donc ñu ngi koy ñaanal mu jot si ak jàmm moom kii di daam. xibaaru guddi gi dañ koy uh, daal di commencé fële ca biir diggante Allemagne ak Angleterre dem wax ci kii di Bayer Leverkusen wax l'un de ses meilleurs joueurs di ki nga xam ne moom la ñu tuddee Florian Wirtz xam ngeen ne l'année dernière at ñu génn foofu ci biir championnat bu Allemagne moom la ñu tabb def ko meilleur joueur championnat bu Allemagne kon. bu fekkee ne équipe bi soxal nañ ko doon loo xam ne lu ñu bett la ki nga xamante si nii moom la ñuy tuddee Arsenal la équipe bi di Liverpool maanaam daal les équipes anglais commencé nañu xam ne sentir ne bii mën naa doon at mu pour kii di Florian Wirtz pour que nag enfin mu dem ci club boo xam dina mën a gañe lu si dem ne liggéey Ligue des champions kon club bu anglais yi commencé nañoo ñëw ci fàttali nag équipe bi di Leverkusen moom nee na diggante cent cent trente jàpp ba cent cinquante millions la bëgg pour bàyyi jeune joueur bi nga xam ne moom mooy Florian Wirtz club bu espagnol yi dañu tardé pour ñëw club bu français yi tamit duñu tardé pour ñëw naka noonu tamit italiens yi ak allemands yi parce que il fait partie l'un des meilleurs joueurs du monde moom kii di Florian Wirtz équipe bii di Liverpool nag bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ci gën a taxaw am na sax benn taskatu xibaar bu nekk Liverpool tey boo xam ne daal dinay confirmé ne Liverpool mi ngi koy surveiller mais nag taskatu xibaar boobu daf ci toftal ne est-ce que Liverpool jar na muy yëkkati xaalis bu takku di ko def ci kii di Florian Wirtz parce que nekkul priorité eh wax na lu am solo parce que Liverpool dafa mel ne poste boobu nga xam ne moom lay lijjanti ak kii di Florian Wirtz bëri na joueurs yoo xamante ne ñaa nga ci biir Liverpool te di ko jouer sans problème. waaye tamit bu fekkee na entraîneur moo ko demande rek donc am na raison Liverpool aussi ñi ngi bàyyi xel kii di Jérémy Frimpong moom pour man kooku moom moo gën a doon li nga xam ne moom mooy priorité pour ñoom parce que kii di Arnold ba tey donc dañuy ñoom euh, ñoo yem rek ce sont des latérales yoo xam ne ils sont bons offensivement mais très mauvais défensivement muy kii di. Trent Alexander-Arnold ak ki nga xam ne moom mooy Jérémy euh, donc Frimpong kon ki nga xam ne moom mooy Frimpong la néerlandais ak ki nga xam ne moom mooy kii di. Florian Wirtz ñu naan les yëpp Liverpool soxla na leen pour trois beneen joueur bi nag di Florian Wirtz actuellement Arsenal sax mi ngi ci dossier bi. dañuy bàyyi donc ci Liverpool jubali fële ci Angleterre wax ci équipe bii di Manchester United gaa ñi xam ngeen Manchester United. ki leen yor actuellement ñu koy tuddee la directeur général euh, ñu koy tuddee Omar Berada Omar Berada. Euh, xëy na lim nekkul joueur moom moo tax ñu si bëri bëri duñ ko bàyyi xel mais dafa jóge City dafa liggéey bu mucc ayib dem United jóge club bu Refal dem ci beneen club boo xam ne mooy club bu Refal la. loolu euh, tax sa supporter City yu bëri ba moom kii di moom nag nee na li mu bëgg di deux mille vingt huit fii ak deux mille vingt huit fii ak ñeenti at équipe bii di Manchester United gagné lii di championnat maanaam daal fii ak donc deux mille vingt huit tax ngeen United bu ñu ko tuddoon donc euh, Newton Ayt. Euh, ñu créé ko ci atum la tudd Manchester United bu ñu demee ba 2028 day tombé ak mu am 150 ans téeméeri at ak juróom fukk donc li bëgg mooy nag bu cay yam dajeek ñu am championnat bu Angleterre on mais du résultat yi ñu am nii moo leen gañal ay championnat donc il fallait que ñu changé beaucoup de choses. ki nga xam ne moom mooy Kovacic donc tontu na joueurs yu bëri war a bokk ay lii di supporters yu yaakaar ne. gis City mu ga mu tegale ay ñeent championnat rek euh, gagné championnat dafa yomb non non non nee boo gisee City di tegale di gagné ay coupe chaque année da nga yaakaar ne dafa yomb mais gagné coupe yombul surtout avec Manchester City parce que à chaque fois dañ lay xaar pour que nga gagné donc da war a gagné kon boobaa day métti. man nag trophée yi nga xamante ne nii amagun naa ko yëpp daanaka euh, championnat bu Angleterre dafa bokk ci ma gën a neex parce que dama faa nekk lu tolloog juróomi at jàpp ba juróom-benn at gañëwu ma ko yàgg Chelsea lool donc boo bëggoon ko lool taxoon sax ma gën a takk sama li nga xam ne moom mooy sàkk jubali foofu ci Manchester City moo tax fi ñu toll nii trophée la boo xam ne damay sant ak gërëm li nga xam ne moom mooy waa City waaye tamit les nga xam ne mooy Pep Guardiola mi nga xam ne moom moom amal boppam lii di confiance pour indi ma ci club bi nga xam ne moom équipe bi di City bu kenn yaakaar ne li muy gagné coupe bëri na rek gagné coupe daa yomb yombul ki nga xamante ne moom mooy Raheem Sterling dem ko démb euh, la euh, li nga xamante ne moom mooy première titularisation ak club bi nga xam ne moom mooy Arsenal marqué li nga xam ne moom mooy première bitam moom ki nga xam ne moom mooy moom ki nga xamante ne moom donc. équipe bi nga xam ne moom mooy Arsenal xam nañu ne Raheem Sterling nekkul Raheem Sterling à 100% même sax kii di Mikel Arteta wax na ko après la fin du match nee ki nga xamante ne moom mooy Sterling physiquement pareegul parce que dafa war a nekk ci niveau bi nga xam ne ñun moom la ñu soxlaa niveau boobu nag xam nañu nekkul ci actuellement dinañ gën a travailler pour que. mu daal di nekk waaye tamit lii un pas vers l'avant la way lu baax a baax la parce que bu marqué dina am confiance confiance bi rek donc day renouveler li nga xam ne si moom mooy euh, lii di euh, yokkal li nga xam ne xam ne si moom la Mikel Arteta bëgg ci ñoom nga xam ne moom it ci coupe bi dina permettre yenn joueurs yi nga xam xamante si moom la ñuy tuddee kii di Eduardo Camavinga officiellement def na retouram comme ni ko kii di Carlo Ancelotti waxee woon donc def na retouram tey jii si sode bi

kon ki nga xam ne moom mooy Eduardo bu nekkee confiance nekk ci forme a 100 pour cent moom mooy titulaire bu mënul nekk wax nañu ne kii di Luka Modric moo pare pour de place am bu ko defee Rodrigo ak kii di Vinicius ñoo samp gis kii di Jude Bellingham ci seen ginnaaw. ni nga xamante si ñoom ñooy waa Real Madrid chaque joueur donc am na li nga xam ne moom mooy otoom way benn sponsor donc di waa BMW donc nga xam ne ñoom ñooy sponsorisé donc équipe boobu nga xam ne moom mooy Real Madrid at mu jot noonu lay def donc kon bu ñuy def seen déplacement yi ci prochain match yi ku ci nekk am nga sa propre oto ku ci nekk jox nañ la li nga xamante si ne moom mooy caabi. lii di voiture bi pour que nga mën di doxal sa soxla kon sponsor bi moom sponsor la boo xam ne xay na équipe buy Real Madrid seen i joueur bëgg nañ donc mu bëri parce que sponsor boo xamante ne chaque année day maye li nga xamante ne moom mooy benn oto chaque euh, lii di euh, lii di euh, joueur chaque année. ki nga xamante ne moom la ñu tuddee Endrick pourtant xale bu ndaw la 18 ans seulement la am ki nga xam ne moom mooy Endrick déjà joué na 100 li nga xam ne mooy ci carrière am way boo boolee li mu fubal palmarès ak li nga xam ne fubal ko ci équipe nationale Brésil ak li nga xam ne joué na ko aussi ak Real Madrid lépp au total euh, toll na ci 100 match donc xale la boo xamante si ni dafa dafa teel yor li nga xam ne moom mooy dangaru mag moom ki nga xam ne moom mooy Andrick gars yi nag Andrick xam ngeen ne euh, bërki démb euh, daanaka bu VAR bi utilisé woon mënoon naa jël carte rouge contre ki nga xam ne moom mooy la Alaves ci benn homme boo xam ne door na ko défense euro Alaves bi après loolu nag wax nañu ne euh, André Gueye jéggalu na euh, Carlo Ancelotti ak waa Real nee nañ leen loolu du ko defee et c'est important parce que xeetu euh, geste yu bett yooyu noonu mën na la indil carte rouge après manquel sa équipe da nga waroon leen mën a amal njëriñ ci prochain match yi donc bu fekkee ne xale nga parfois boo defee yenn geste yoo xam ne si ni jaaduwul li gën mooy nga rectifier ko te jàllaat ci leneen. équipe bi nga xam ne moom mooy FC Barcelone mi ngi ci donc actuellement rythme boo xamante ni comme ni ko journalu Barcelone yi daal di defee titre tey donc sans frein donc FC Barcelone actuellement moom benn euh, route la jël mooy ndam bu jot beneen ndam nu ci Barcelone actuellement mi ngi ci euh, sept match sept victoire daanaka ñaari équipe deux équipes seulement donc ñoom ñoo am li nga xamante ni moom mooy. Euh, sans faute actuellement muy moom ak club bi nga xam ne moom mooy Bayern Munich équipe bii di FC Barcelone nag seen génération bii nii di génération kii di Lamine Yamal ñi ngi ci yoon pour di battre li nga xam ne moom mooy benn record. boo xamante si nii donc ci club boobu di Barça la amee muy lan début donc d'un nouvel entreneur boo xamante si ni sept premiers matchs yi yëpp donc perte ci benn match donc sept yëpp def ko gagné. parce que bu ñu xoolee kat équipe bii di FC Barcelone euh, mën nañoo jëkkee kii Tata Martino Tata Martino diggante 2013 jàpp 2014 moom. Euh, huit premiers matchs yi yëpp donc daf ko gagné Ernesto Valverde daanaka moom it débéem diggante 2017 2000 ba jàpp 2018 moom ngeen gis record bi nga xam ne wax nañ leen ko ci dernière vidéo bi moom jamono jooju la ko defoon moom sept premiers matchs yi yëpp daf ko gagné. donc trois entraîneurs la gis ci histoire Barça yoo xam ne seen ñetti matchs yu njëkk yëpp seen juróom-ñaari matchs yu njëkk yëpp dañ kaa gagné ñetti entraîneurs di ki moom mooy Martino di ki nga xamante ne nii la ki nga xam ne moom la ñu tuddee Hansi en Belgique a donc euh, la possibilité euh, donc de dépasser ki nga xam ne moom mooy Ernesto Valverde et égaler ki nga xamante ne moom mooy Martino comme bu fekkee ne ki nga xam ne moom mooy Ernesto Valverde am na sept donc kii di Hansi euh, Flick match bi ñu jëm bu dóoree day am huit. donc huit matchs huit matchs nag benn entraîneur moo ko fi mas a def di Martino kon ki nga xamante ne moom mooy Hans Flick li nga xam ne mooy possibilité daal di tolloo ak kii di euh, Martino doon donc lii di euh, deuxième entraîneur bi nga xam ne ci histoire Barça moo mas a ñëw juróom-ñetti match njëkk yëpp donc mu daal di koy gagné kon ki nga xamante ne moom mooy Hans Flick mën naa sax def lu ko raw. ci kaw bu fekkee ne am na neuf match neuf victoire moom nag Hans Flick nee ba muy dikk Barça xamul woon ne sax record bi nii existé na ay dóor la rek bu sañoon da koy baat donc nee moom xamul woon ne sax donc ki nga xamante ne moom mooy Tata Martino moom l'essentiel mooy record yi yoonu euh, que telle équipe boo xam ne fa nga signé moom Hansi Flick donc ay wax la. comme niñ ko donc ñëwoon keroog sur le dossier de kii di Marc Bernal ki nga xam ne moom mooy FC Barcelone. à euh, ak ki nga xam ne moom mooy Marc Bernal pour prolonger lii di contrat am ba 2029 avec euh, donc une clause libératoire vraiment boo xam ne dañ koy améliorer parce que la clause actuellement. moom mooy njëkk bi nga xamante si moom lay jar parce que équipe bi di Manchester United bëgg na ko Newcastle bëgg na ko vous imaginez bu fekkee ne jour bi soxla woon na Manchester United bu ko neexee janvier day ñëw rek joxe 20 millions jël Marc Bernal yóbbu loolu la ñu tuddee clause libérale boobaa Barça du ci mën dara du ci parce que moom mooy njëgam léegi Barcelone nag yooyu la jël daal koy jël yóbbu ko 500 millions le fin du mois donc ki nga xamante si ni moom la ñuy tuddee Villarreal donc tey jii ne amaat na ndam donc nekk quatre quatrième victoire euh, bu Villarreal deux matchs nuls et une seule défaite contre FC Barcelone. Euh, Villarreal donc boobu kii di Pape Alassane Gueye donc tey jii nii am na ndam contre Espanyol de Barcelone donc taxawee ci quatrième place bi mais attention Ayoze Perez dafa mel ne dañoo commencé gisaat la Ayoze Perez donc. le Newcastle xam ne bañ daan gis ay jamono dañ ko daan waxee le nouveau Suarez donc dafa mel ne critiquer pourquoi nga jógee Betis dem Villarreal te Betis peut gën a baax la projet mais en tout cas individuellement et collectivement baax na parce que sept matchs six bi deuxième meilleur buteur du championnat moom kii xam ne moom mooy Ayoze Perez après Robert Lewandowski ma ne ma ne bu fekkoon ne. am ay joueurs yu baax ñoom ñooy tax a gagné Ligue des champions war yor ay joueurs yoo xam ne ñooy meilleurs joueurs du monde mooy tax a gagné Ligue des champions heure bii nii Paris Saint-Germain lu mu gàtt gàtt am na juróom-ñetti Ligue des champions loolu moom mooy kàddu yi nga xam ne Luis Enrique yëkkati na ko bi ñu ko waxee ne ko y a des joueurs yoo xamante ne ay joueurs de classe mondiale lañ euh, passé au PSG ak réussir ñu am li nga xam ne moom mooy Ligue des champions mu daal leen xamal ne. da ngeen a war a xam ne du ab tur moo tax nga war a mën a gagné Ligue des champions Ligue des champions liggéey moo la koy may mais aussi tamit euh, chance da cee bokk mais bu fekkoon ne meilleur joueur du monde yi donc fu ñu nekk rek donc Ligue des champions du fa jug heure bii nii Paris Saint-Germain gagné na sept Ligue des champions wala huit Ligue des champions il a raison ay Ronaldinho passé nañ au PSG ay David Beckham passé nañ au PSG euh, kii di euh, Zlatan Ibrahimovic Neymar Mbappé. Dimeria Messi donc tout le monde et ba tey jii nii man na kii di PSG mënul gagné Ligue des Champions loolu kon day wane ne am na lu ñu war a taxawal waaye tamit manque de chance ci la bokk ki nga xam ne moom la ñu tuddee Eric Roy donc di kii tàggat équipe bi nga xam ne moom mooy équipe bi di euh, Brest xam ngeen euh, la saison passée moom la ñu tabb def ko le meilleur entraîneur de Ligue 1 moom ki nga xam ne si ne moom la ñu tuddee Eric Roy moom nag. di kii di rek dañ ko suspendre lu mat trois matchs yoo xam ne du def li nga xam ne si mooy entraîner club boobu man daal du ñëw ci biir stade bi moom nag mer na ba fëtt parce que match bi doxoon diggante équipe bii di Brest ak nga xamante si ni moom mooy Toulouse donc ci la doon donc euh, contesté ak li nga xam ne moom mooy arbitre bi ba yëkkate ay kàddu yoo xam ne ay kàddu yu xaw a dépassant la ci lañ ko donc daal di acc moom nag mu ngi gaarawaale arbitre yi parce que nee leen man ñetti fan ci ginnaaw euh, demoon naa Ligue de Champions gis naa fay arbitre yoo xam ne quatrième arbitre bi ni mu doon ñëw di wax ak man dal gi mu dal ak buy wax ni nga xamee ne kii xam-xam la am ak tamit xam bi mu xam ni ñuy waxee ak nit ak explication ak accepter li nga xam ne moom mooy erreur gisuma ko fële ci Ligue kon li mu bëgg a wax mooy arbitre Ligue 1 yi ci boppam dañoo ñuul xamuñu tus donc li nga xam ne gis naa ko fa li nga xam ne moom mooy ca biir Ligue des champions gis naa ne c'est des arbitres de haut niveau attention parce que bu gars yi amaat possibilité pour teel daan dina teg daan yu méttee méttee parce que yaa ngi saboté li nga xamante ne moom mooy Ligue 1 bi par rapport ak seen i arbitrage gars ñi continuer leen abonné partagé bi lii di vidéo vraiment lu am am solo la ci seen bi surtout bu fekkee ne donc seetaan nga ba pare c'est important nga daal di partagé bu fekkee ne surtout abonné go j'espère que abone nga nga daal di donc partagé bu fekkee ne abonné goo nga daal di abone ki nga xam ne moom la ñu tuddee Bellardi di donc défenseur argentin bu ci bii di Olympique de Marseille xam ngeen ne keroog lañ ko teeloon jox carton rouge ci derby olympique euh, diggante Olympique de Marseille ak Lyon équipe bii di Marseille nag après dafa def appel maanaam dafa def recours pour que ñu dindi deuxième carton bi mais euh, waa Ligue euh, jël ndogal nee nañ daal duñ ko dindi loolu nag mooy wane ne officiel na kii di Belardi ak nañ ko benn match boo xam ne du ko football kon prochain match bi du ñëw parce que waa Ligue 1 dañoo gàntal de lii di recours bi nga xam ne waa Olympique de Marseille indi nañ ko ba subaak jàmm fanaan ak jàmm di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf